gens yoo xamante ni amuñu sax affectation dañu mujj toog ñu leen di fay muy coûter très cher au finance publiques mu ne leen ñëpp munu leen a def rupture bi mu leen wax mooy mhm. ne pensez pas que bi mhm. dafay nekk benn tremplin pour utal leen liggéey dans l'administration publique mhm. ni leen loolu kese nekku fi deuxièmement ñun jeunesse bi dama bëgg dugal ci yéen yenn valeurs yoo xam ne moom lañ doon incarner dans l'opposition mooy ngeen xam ni yéenay ñi war a tabax dëkk bi dans tous les domaines nee na leen dañuy bàyyi dañuy bàyyi mm-hmm. nee na leen lii ñu doon def du folklore comme cleaning day bi ñëw xëy suba tabax bi defar ni mu jeex nee na non non non maanaam jeunes yi doivent dañ leen di occuper formation professionnelle dégg nga liñ ciy waajal bu ñuy buy buy valoriser l' agriculture est pour montrer que c' pas un sot métier. pour mettre fin à exode rural ni muy amee dañuy def l' inverse fexe ba les jeunes des villes ñoom ñu dellu ci àll yi. mais l' agriculture est est moom mooy c' est le futur. donc buñ ñu ci buñ buñ ci ah, dugalul ndaw ñi. duñ dinañ yàq yéex yéex a egg ci autosuffisance. parce que président Macky Sall. 2017 lañ joxoon app ne autosuffisance en riz mais on peut être autosuffisant ci li ñuy bay lu bari parce que Sénégal suuf manqué wu fi ressource manqué wu fi soleil manqué wu fi mais volonté bi